dee nga noppaloo dee nga noppaloo dee nga acey loolu mbokki Sénégal rawatina Mbok région bu Thiès gaay ne woon naa jamais 203 waaye jinne bu bëggee Dakar ku yéeg ci suuf nga jëm waaw waaw mbokk yi Pambal TV vous présente Pambal Production Pambal Production seen base mi ngi nekk fii ci diwaanu Mbapat nekk foofu ci siège u Pambal TV ah boo jokkoo ak ñoom lépp loo xam ne am nga ko ci. Jàkkaarloo na sa programme muy xew bu munti doon mariage baptême ay le ziar les plombs munti am dawal nga le ak ñom lepp ci wala nga VIP am aussi ay VIP lumière sonorisation lepp plus xam ci décoration la amuñu ci morom lepp lo xam ni tamit bëgg nga ko ci organisation a Pambal production taxaw nañu ngir askan wi nek région de Thiès ak

na loxo yi daj na loxo yi daje Cheikh man lay mii Cheikh man lay mii raw na gaañi raw na gaañi raw na gaañi taal na lislaam taal na lislaam sagal na ndaw ñi taal na lislaam taal na lislaam sagal na ndaw ñi na loxo yi daje ku ci tàcc rek yàlla nañu ci tàcc téeméeri at yi commencé tey jii ku ci tàcc yàlla nga siyaare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam تعالنا للسلام تعالنا للسلام تعالنا للسلام سجلنا ناوي باكا أستاذ باكا أستاذ باكا أستاذ ورنا كاني باكا أستاذ باكا أستاذ ورنا كاني كل جلد كي ورنا كونو gënal ko boppam gënal koy waajuram gënal koy mbokkam kon yonent bi moo war a gënal suñu bakkan yi yonent bi moo ñu war a gënal suñu bakkan yi kon dañ ko war a bëgg bokk na ci dañ war a bëgg tamit yàlla waaye bokk na ci dañ war a bëgg téere suñu borom bi di alquran kon ñu tàjjiwaat xale yi bu a baax a baax a baax a baax a baax Ah, amoo leen ay ah kon bu ko defee da ngeen di da ngeen di aw di daj da ngeen di aw di daj di daj di déglu di indi di daj di déglu di indi di daj di déglu di indi di daj di déglu di indi di daj di déglu di indi waaw koy noonu la. bas bi daa naaw bas bi daa naaw bu ko defee kon ña ngi woo élève bu ñu wax Ndeye Maguette Diop ak Ndeye Astou Diop ak Mama Diagne Ndeye Maguette Diop Ndeye Astou Diop ak Mama Diagne waa ñoom ñëpp ay ndey rek kii dañoo wax mama muy di wax kii olof muy ndey muy yaay ñoom ñëpp mama lañ bu ko defee kon ñoom ñooy tari sóoratul kawsar ñooy tari sóoratul kawsar ak maayu xaal Diop ak Ndioba Gueye Ndioba Gueye day na koy songa ak Khady Diop ak Ndioba Gueye tàccul mu ñëw ba mu yegg si fi muy daree tàccul mu ñëw ba mu yegg si fi muy daree waa nañ tàccu waa garb nañ tàccu waa simaal nañ tàccu waa junub nañ tàccu doy na na sëkk sax lu ndaw ndaw bu ko defee dañuy jàll ci élève bu ñu wax Mouhamed Top Mouhamed Top ak Cheikhouna Diop ak Fallou Diop ayna ayna ayna xale yi ayna ayna xale yi ayna ayna xale yi ayna ayna xale yi ayna ayna ani naa xale yi kon xale yaa ngi noonu ak seen sant yu rafet yooyu ñoom ñooy tari suratul asri alquran bu ko defee kon dañuy njëkkante waxtu bi rek dem ci élève bu ñuy wax Baye Salih Dieng ak Serigne Fallou Ndaw ak Gora Diop Baye Salih Dieng Serigne Fallou Ndaw Gora Diop ku ci daaj yàlla boo amati ñoo ngi tari sóoratul fiili ak kofi bu laaxa ku leen daj yàlla moo amati loxo buy métti mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk kon ñu sama ustaas sama ustaas sama ustaas sama ustaas moo ma jàngal moo ma jàngal moo ma jàngal moo ma jàngal dama koy wor wor maal ma du ma ko wor dama koy wor wor maal ma du ma ko wor sama ustaas moo ma jàngal kooku mooy ustaas Mor Top ma ngi si jataay bi taral jotaay bi moy borom sañ bu rafet bobu ngeen di gis ngeen tàjj ko bu baax a baax a baax baax baax kon ko sam Mor ngeen lay dalal bu baax kon bu ko defé dañuy continuer rek ak élèves yi ñu wax bay Ndaw ak Njaga Ndaw ak mudu Kan Ndaw bay Njaga Ndaw ak Njaga Ndaw ak mudu Kan ndawen ndawen yi ñoom ñooy tari soratu takasur kaw kaw ñu dellu waaye dafa mel ni élève bi man dafa mel ni ndégg li daa rees ndégg li daa rees reesagul léegi na ko loxo yi wone ma gis na ko loxo yi wone ma gis dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara waaw bu ko defee suñu gan yi lañ bëgg ngeen tàcc leen bu baax a baax suñu gan yi suñu gan yi ñu ngi leen di sant yéen a taaral sunu bis bii suñu gan yi ñu ngi leen di sant yéen a taaral sunu bis bii yi ñu ngi leen di sant yéen a taaral kon gan ñooñu mooy al imam Jibril Ndiaye ma ngi ci jalaay bi ña koy nuyu di ko dalal bu baax a baax ak al ustaas wa sadiq kooku nga xam ne mooy xaritu Ousmane Malay toujours foo leen fekk rek yéen ñoom ñaar ñooy ànd muy Ousmane Mor Top ñëwoon nañ ci léegi ma ngi ci jotaay bi ak soxna Mami Seck muy yaa Sayda euh, Awa muy Awa Ousmane Mor Top moom it koy dalal bu ko defee tamit ñoo ngi dalal tamit Alhaji Moussa Diop mi nam moom it teew na si jotaay bi ak mboolem ñi nga xam ni teew nañ fi ci góor jigéen ñëpp rek. ñoo ngi leen di dalal kuñ tudd rek nga xam ni tudd daa matalewul waaye ñëpp lañ bëggoon tudd kon ña ngi dalal képp ku fi teew rek dina la sant bu baax a baax a baax di la wax ni la seen teewaay moo taaral bis bi kon bu ko defee dañuy continuer dem ci élèves yi bu dañuy continuer dem ci élèves yi ñu continuer ak élèves bu ñu wax Ndeye Koumba Fall nday Kumba Fall ak Fatou Ndaw Fatou Fall ak Ndumbe Ndumbe Thiam nday Kumba Fall Fatou Fall ak Ndumbe Thiam tàccul ma xale yi tàccul ma xale yi tàccul ma tàccul ma tàccul ma tàccul ma tàccul ma kon xale yaa ngi noonu bu ko defee ne tari sóoratul masal asalaamaaleykum ngi si jataay bi jantal Mara ah Cheikh ci monsieur Cheikh Dieng ma ngi ci jataay bi sécurité ak monsieur Serigne Maam Jaxate mooy suñu ñaari sécurité yooyu ngeen gis Serigne Mar Jaxate ñoom ñoo nekk noonu ñooy sécurité ñooy sécurité bis jàppale leen ci bis bi ngir organiser leen bis bi. bu ko defee ñu ngi dalal tamit ak Oustaz Daouda Mbengue Oustaz Daouda Mbengue Oustaz Daouda ah kooku moom xam nañ ko waa nañ ko tàcc bu baax a baax a baax a baax damaa bëgg ñu wéyal ko Oustaz Maleye Oustaz Maleye. Why? Dá, dá, dá, dá, dá o dedo na président en bi nga neex bi nga xam ne ma ngi ñëw ànd ak ñun liggéey bi muy Pambal TV nga xam ni bari na programme yoo xam ne ma ngi am ci zone bi ko couvrir ko jàllale ba nit ñi di ko man di suivre nga xam ne ay archives lay nekk yoo xam ni dañ koy man di topp chaque jour suñ ci bëggee jot rek man cee kon Pa Pambal TV ñu ngi leen dalal bu baax a baax a baax. élèves yi yéen a amee wax ji te yéen a dalal gan yi yéen a amee wax ji te yéen a gan yi na ngeen noppi bu ko defee tamit dañuy présenté tamit ak oustaz Madiame Mbaye moom it ma ngi ci jotaay bi moom it moo ngi yore ah caméra boobu macha allah di couvrir programme bi ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ñoo ngi présenté waat tamit monsieur Sarr monsieur Sarr tamit moo ngi ci jotaay bi ñoo koy présenté di ko dalal jàmm. ak mboolem ñi nga xam ni teew nañ ci jotaay bi ñu leen di présenté ñoom ñëpp lim dadul madal lim dadul madal waaye tàgge boo gis am na jàppal diw loolu rek la. bu ko defee kon dañuy continuer ci élèves yi di woo élèves bu Aram Ndaw ak Nday Toob ak Astu Sonko Aram Ndaw ak Nday Toob ak Astu. ñoom ñooy dari sóoratul masal yi ak allahu rabbi kon bu ko defee ñu dajwaat xale yi ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw élèves yi wax léegi wax ngeen wax nañ leen gën yéen léegi yéen da ngeen wax dajjootu leen da ngeen di dajji ci kaw kaw kaw kaw dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara dégguma dara waaw kay noonu laa ko bëggee bu ko defee kon ah dañuy woo élève eh, bu ñu wax Modou Fall Modou Fall Dieng ak Mouhamed Dieng ak Papa Dieng kon les Diengeen la ñuy woo yooyu la ñuy woo ñëw dara ñu gaaw Papa Dieng suñu xalé yi ayna ayna suñu xalé yi ayna ayna wa xalé waa xale yaa ngi noonu nañ bu ko defee kon ñooñu tari sortul masadi ak xayrukum assalamu alaykum defee dañuy présenté waat rek suñu gan ñoo xam ne teew nañ fi muy Serigne Mame Mor Mbaye Touba Ndiané muy waajuru Serigne Cheikh muy waajuru Cheikh Mbaye Cheikh Mbaye buy def euh, ahlan wa sahlan waaye tamit ñu ngi dal ñu ngi dalal bi ñu ngi dalal tamit Seyd Oustaz momit it teew na fi ñoo ko wax marhaban bigum waye tamit ñi ngi dalal ah, monsieur Omar Cissé boo xamee ma ngi jégué ties momit it ñëw na si jotaay bi ñoo koy dalal ñi ngi dalal tamit ak Sayid Sayida Fatima mbay mo ngi jégué Mbayeen momit it ñoo koy dalal ak mbolem gan yi nga xam ñi ngi fi rek ñoo ngi leen di dalal di leen wax marhaban bigum bu ko defee kon dañuy continuer ak élèves rek di woo élèves bu ñu wax Pape ak Malay Fall ak Makhtar Gueye Pape Diop Malay Fall Makhtar Gueye bis bi tey ku ci kontaan na nga tàccu bis bi tey ku ci kontaan bis bi kon ñoom ñooy tari sooratul ah, mauna dara exemple fi mu ne sa waay lan la fi mu ne laa yàqal dara. maintenant nag dafa mel ni conférence bi amul benn benn benn benn nizaam ndax seen coow bari waaw loo toog nag juróom-ñeenti at wala juróom-ñeenti weer ba benn bis bi yéen ngeen moom ko ngeen war a ah, mu mel ni nag dañuy doog a commencé Baye Gora Ndiaye mi nga xamee sa moom moo fi jógee nekkoon suñu xarit di suñu wëllëree di suñu baay di suñu lépp soppanu te yàlla tax moo fi jóge tey am ah, xam ngeen ni laneen lu woote woon lu ne danañ ko fang mais alxuraan tey moo woote ñuy ñaan nag ci barke alxuraan élève bu yéeg fii rek xaraf boo jàng rek yàlla na ca yàlla jox Baye Gora Ndiaye dana la ko jox incha allah ndax ku bëgg alxuraan la wax fekk fu nekk rek fekk nañ fa ku ñeme woonu dëgg ku bëggal alxuraanul karim ku bëggal Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla yàlla fay ko mu mel ni dañoo am ay mbokk yoo xamante ni ay kilifa lañu dañ fay ñëw eh, eh, bëgg a ñaanal mbooloo mi doo su ko defee nag bu ñu paree mbooloo mooy sëñ Mamor ma nga ne kon yéen xale yi yéen ñi bokkoon yéen waa awal i'daad yi kene mooy papay Cheikh Mbaye papaam Serigne Touba ko defar muy Serigne Mapaté Mbaye mu doon ab sang kon Cheikh li ma bu ngeen gisee ma ko daan tooñ naa ko sa maam laa eh, papaam mais man maay ndijaayam ñu bokk lépp waaye ba pare mu doon sama sëriñ kon sëñ Mame Mor ñu ngi lay nuyu di sàkku ci mbooloo mi nga defaleen leen ñaan waaye kee tamit moom mooy kilifa école eh, Pambal école sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma xam naa mudirul am na moom mi ngi ñëw mooy ki nga xamante ni moo yilif école yi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yëpp mi ci yoon yi moom la Baye Matar mi Baye Cheikh mi doon xaar. Ah, xam naa waaw yéen loolu. loolu la ñu war a tàcc ci kaw kaw xam naa bu ñëw tamit dina àndaale surprise buy ñëw moom dina àndaale surprise. Ah, waaw surprise incha allah. su ko defee. sëñ Mamor bu ko defee nag kon li des ci programme bi sama gars yi bopp yi ñu présenté leen mooy suñu doyen Oustaz Omar Tall al Maarouf e eh, waa Sadis waa Sadis Omar Tall te mooy kan Omar waaw ki ci wet ki kan la ki ci wet ki mooy kan Oustaz Mor Diop Oustaz Mor Diop moo fas yéene nag wéyal liggéey bi ba timis a timis incha allah tàcc leen loolu macha allah eh, loolu nag dafa bayaan tuuti leeral kenn ku ne xam na ne Oustaz Mor day Euh, ñii ñëpp moo leen doon teel ñuy tari doon koo xamee sa ni nag ñëw rek la ko yàlla booleel yaakaar naa ni barki démb bi mu gisee xale yi yaakaar naa ni wax nañ wax joo xamee sax man fekkuma ko kon kooku moo fas yéene ànd ak xale yi di suñu xarit di suñu wëllëree di suñu bu baay di suñu lépp ba pare nangoo doon bàyyi faalu oustaz ma lay toog loolu kawe na lool kon oustaz Mor ñu ngi lay nuyu baax dina wax eh, nga ndax say xutawaat yëpp mooy al islaax saatul bayni moor xam naa dina jaaxal ñu bari ndax moom jaaxaan naa la tëdde eh, doon koo xamee se nii fu mu toog rek benn baat lay wax mooy l'islam moo ko ñor kon Ousmane Mor wax dëgg yàlla loolu ñu ngi la sant baax ci islaax bi ngay def yal na fay la ngeen di fay kon bu sëñ Maam Mor ñaanee rek ah moom mooy jël kàddu gi soo ko defee bu sëñ bi ñaanee ñu tàcc Oustaz Mor xam naa Moussa defe naa ñaar ak moo la des ci sa liste Oustaz Mor àggale conférence bi su ko defee Mor nag moom day gaaw jigéen ñi gën a yi nee nay ba gaaw nay bar ndax dañoo bëgg ñëpp tari Oustaz sax dañuy tari man mi sax am na lu may kon sëñ bi ñaanal mbooloo bi lo ñaan nak mu nangu ndax sa maam ak ah sa wujur ak seigne touba la won sa wujur yaakaar sëñ ma seex sëñ seigne seex eh, sëñ ma ndumbe Mbàkke kon nak barab baangi ni nii ñaanal keroog dal bismillah alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحمد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم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 loolu doy na ak sant yàlla bu baax a baax a baax. siyaar bu baax mbooloo yëpp si kër oustaz ak xale yi ak soxna yi ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen tawfiq bu baax a baax di am mbégte si sama yaay di sama waajur di sama lépp. ma defoon ko sama sama doom ngir mbokk ak naw ak yaakaar loo xam ne day jóge ci day ci man jëm ci moom te dara waral ko lu dul maa ngi ñaan sunu borom état bi bu fi teew sunu borom tuuti la suñu borom aar la suñu borom natt la fa yàq yëgul suñu borom doole la bu baax ci barke alxuraan ma ne ñu ngi lay baax di la gërëm nga ñaanal yàlla suñu borom guddee soo fan suñu na fi doom ndax xam naa la baax sa xam naa sa bëgg alxuraan waaye na nga xam ne sama doom kii ma la jox jox naa la ko ngir wéeruwaay ci moom ndax maamam di ngeen ci Serigne Touba wax naa la léegi nee na bi mu yeggee ba ci moom dañu ko fii de maa fi dàq bay maa fi gën a mokk alxuraan te loolu lépp am nay firnde ndax kenn ku muy liggéeyal Serigne Touba moom suñ tur boobu ko Serigne Touba ko santee sëñ ma dumbe moom la ko joxoon kenn bi mu ko ko joxee bu tuddee kaamil yi moom Cheikhul Khadim daa jël kaamil ba teg ci dënd moo def bi ñu ko dongal ñu wax paate moom sëñ la dund moom sa daal yi kaamil alxuraan bi alxuraan boobu nag ñaanal suñu borom pàkk bi suñu borom ci barke alxuraan boobu ci barke liggéey boobu maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw dinaa la ñaanal soo kenapa yëgul dinaa la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 يا من يروم دح كل داه فلا تفارق مطلب صفاه ودم عليه في المساء والصباح قنع الصفاء والفلاح باسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاكسر السلام عليكم ورحمة الله 嘎。 kon bu ko defee ñu tàccu bu baax a baax a baax a baax Seyda lu ngeen koy ñaanal lu ngeen di ñaanal Seyda. lu ngeen di ñaanal Seyda. nanggap yàlla na fa. kon ñu daaj bu baax a baax tari nañ fa xadis boo xam ni nag defar société bi bis buñ ko pratiquer rek dina defar société bi mooy bëggalal sa mbokk li nga sa la bul la bul ba yi lañ bëgg mu daajeeku tey bâche yi lañ bëgg mu daajeeku naaw dem bis bii tey ku ci kontaan na nga tàccu bis bii tey ku ci kontaan na nga tàccu ku ci kontaan na nga tàccu oustaz Maleye ku ci kontaan na nga tàccu waaye léegi kontaan na leen oustaz Maleye oustaz Maleye dañuy dugal alxabir oustaz Mor Top mu ñëw yegg rek dina wax ahlan wa sahlan wa tarxiba fi xudurikum farxatun lana moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag moo xam ndaw sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp gis nañu ñëpp waaye di nuyu suñu kilifa Baye Mamoun Wade mais jóge ba Touba Pire Baye Mamoun ñu ngi lay nuyu di la dalal di nuyu bokki toobeen yëpp teew nañ fi ci njiital sëñ Sini Thioune ak Moussa Top ak Abdou Top ak soxna yi na yëpp waaye di nuyu tamit bokki juróom-ñett dëkk yëpp eh, di nuyu suñu xarit Moustapha Baye Fall Moustapha Baye Fall ñu lay nuyu baax di la waaye di nuyu ustaas yi nekk ci daara ji yëpp di beral nag ak cant ak ngërëm mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoo doon jàngale ci daara ji am duñ tudd ñoom ñëpp xam nañ seen bopp ñu ngi leen di sant leen gërëm waaye di dalal nag bokki càlle yi bokki càlle yi ustaas euh, Cheikh Sall xale yi ku to euh, xale yi ku kontaan ci ustaas Cheikh Sall rek tàccul ba pare ñu doog ko présenté waaye Maktoum yaakaar moo fi ñëw di fi jaayante di fi jàngale ak tafsir wa maza wa taarix di nuyu tamit Oustaz Malick Ndour Malick Ndour moom itam Touba Thialé moom itam di fi jàngale Mansa taarixu islam waaye di nuyu nag ah Oustaz Bada. Oustaz Bara jóge ba Thialé waaye ñu ngi leen di wax ni waa Thialé ñëpp ñëw nañu ak seen i élèves ñu ngi nii toog ñoom ñëpp kon ñëw nañu def participation ci bis bi di séntu suñu bokki mbéngeen yi ñëpp kon daal bàyyiwuñu yalla yalla defal ñepp jamm di nuyu suñu kan ñu tedd ñi alaykum assalam wa rahmatullah ah, di dalal Serigne Khadim gey nga xamni mo fi tew teewaayu Serigne mam Cheikh Anta Cheikh muqtada Mbacké ak mbokk mi mo andal Serigne Ahmed Touré ñi ngi leen dalal baax kon bismillah kon xam naa da ngeen noo fekkoon ci présentation bi rek ñu wéyee liggéey bi kon Oustaz Mor xel yëpp namm nañ la xol yëpp namm nañ la yow rek yaate moom yow la ñuy xaar ma bëgg nag ñu tàcc moor tàcc yu ko mbokk mbokk waaw bu ko defee oustaz waaw oustaz Moroom dama bëgg nga may ma kon may naa la ko ndax moo ma daan dugal moo daan teel waaw moo ma daan teel ak kan ma daan tare ak yaas ak yaas léegi nag tey boo bëgg a dugal ak pare mu ñëw dugg ah. waaw kon bismillah gone yi moom du ma leen wax daaj bu fu déedéet dinañ ko xam waaw ya rasul salaam alayhi kontaan nañu lool ci yéen ñoo ngi leen di delloowaat nuyoo bi di leen bëggewaat bu baax di santaat Maulana subhanahu wa taala bu baax di nuyu képp ko xente ni yaa ngi ci jataay bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw xam naa oustaz xer nga lool waaye nag sa wàccuwaay yàlla na yàlla bàyyi ko ak yow yaa ngi ko àndal mu mel nii bala ñuy commencé tuuti rek laa yëkkati gu gàtt waa ko defee nu xam ni tey lislaam moo moo wootee l'islam mo am ndam kon l'islam lañuy ñuy yekati wat ko bamu taxaw ci lan dege alquranul karim and ko ak tout tànk yi ak seeni kat ak seeni wayjur ñom ño fi nekk euh, kon dafa melni ginaaw nuyo bobu ak kaddu yoyu te liggéey bi xoj li nga xamante ni mooy gaañ yi ñu bëgg a profité ak heure bi rek dañuy daal di continuer rek bara ko xam naa bu dee bay daaneel incha allah tëjee kàddu yi war a war a tëjee waaye daal ala kulli xaal ñoo ngi commencé ci baaxu bismillahi rahmaan rahim di woo élève bu di wax Baye Gora Ndiaye ñu tàccul ma ko nag képp ko ko tàcc yàlla na nga siyaari Seydina Muhammad صلى الله عليه وسلم وقايس الجنة وقايس الجنة وقايس الجنة وقايس gurbe kon xale yi dañu bégal loolu ndeysaan ñoo ngi leen di jox waxukaay gi ñu jàngal alquran tegal na ci xawla nabi alayhi salaatu wasalaam bismillah jël ko def fële ñu ko defee ñu may ñu tuuti rek xam naa li ñuy def nii sax gars yi dañoo xel rek waaye euh, ñi fi jaar naqari na wuutu lool ndax mbir boo ca nekkee ba am ñoo xamante nii wax dëgg yàlla tey ñoo la taxawal ci sa taxawaayu démb euh, yàlla wàcce woon na la. xam naa kay ñoom ñoo xel waaye li ñuy def nii ñoom ñoo nu ko dàq fuuf kon ñu ngi jaajëfal oustaz Moussa moom fi jaar léegi ba wàcc ndeysaan di profito daal di woo élève bu ñuy wax Penda Diouf ah mu ànd ak Daba Mbaye ànd ak Ndeye Khady ñu tàccu leen képp ku leen tàccu ndeysaan yàlla nga ànd ak Cheikh Mouhamadal Mourtada Mbacké رب الجنة وأي رب الجنة خلب يا رب جنة بكت الجنة بكت بكت الجنة وقايس الجنة دون وقايس الجنة كنتي ينال دون نكب جيكاوم دون كلب كب كلب كب كلب كب كلب كب بين سب أكون كلبكم yéen lañ bëggale loolu yéen a ngi jàngal leen ci alquranul karim suratul takasur bu ngeen paree ngeen abdi sal nur kon bismillah وسقطي أي ميل شان وسقطي أي ميل زين شكرك يا بدر السماء شكرك يا بدر السماء وكون سخنا جاي أين سخنا جاي وكون بيكون يوم ñooñu jàngal leen ci suratul suratul Humasa bu ñu paree ñu wax na ci xawla nabi alayhi salaatu wasalaam shay amma leen de tàcc leen loxo yi bàyyi ma xool tàcc leen ma xool ma xam waaye ku ci yàlla nga dem Màkka ku ci rek yàlla nga siyaari Seydina Muhammad awa bu ci tàcc yàlla boo gaaw a mujj waaw awa yi bu ci yàlla boo gaaw a mujj de waaw wujjul waaye ku ci bëgg wujj tam nga tàcc waaw bu ko defee damay daal woo kenn lu mu ànd ak maam jaara ak mbay Busa ndeysaan dunduk na daba aljanna dunduk na daba aljanna ramba aljanna xalañ ramba janna dunduk na daba aljanna dunduk na daba aljanna waxaañu sëlginna waaye waxaañu sëlginna ku kii wane lu bon bon na këpp ci kawam borom tolop boy na sëpp jaar ko ci diine mu def liggéeyam lépp ci àdduna yi moom Serigne Ahmadou Touré muy jàngale alxuraan ak yar mu mel nii kon Serigne ma lay Serigne bi mu ngi leen di nuyu mu ngi nuyu waa daara ji yëpp ak waa dëkk bi yëpp di jël nuyoo bi nag di ko teg ci sa loxo nga jàllale leen ko ci mboolem dëkk bi mu mel nii dafa am liggéey boo xam ni day liggéey waajuram ndax asxan waajuram Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko sos nga jànge ci ba xamee li nga xam lépp ci daal di Serigne Mourtada Mbacke jàngale ci ba am gërëmal Cheikh Mouhamadul Mourtada ñoom njabootu Cheikh Mamadou Mourtada gi yëpp nag seere loolu moom muy kenn ci njabootu Cheikh Mamadou Mourtada mu mel ni kon daara ji dafa jàpp ni daara am ko tuddee ñu féetale ndax ab cër mënta ñàkk muy école sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye nag moom jàpp ni daara ji daara njaboot gi fi nekk yëpp ak njabootam la sëriñ bi jàpp na ni lépp daara ji moom la wax ba am na ay naal ak yéene yu yaatu yu rëy yoo xam ni sëriñ bi mi ngi koy naal ci daara ji di daara yi sëriñ Murtada di daara yi sëriñ Seex Mbàkke di daara yi alxuraan di daara bi ak jullit bi xasula mel ni taxawaay bi nga taxaw yow sëriñ ma lay da nga fee taxawal yàlla taxawal fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ nee yàlla ni yonent bi nag ñëpp dugg na ndax lépp muñ ci roon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii li fiy jàng bi alxuraan ci suñu borom la bàyyi ko mu teg ko ci loxo Seydina Jibril alayhi salaam mu teg ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi mu jàng ko jàngal ko saxaaba ya ñu di ko jàngalante ba mu egg ci yow mii moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu borom dafa wax ni wa maa aateekum rasulu fa xusuu wa maa nahaakum anhu fantahuu wa maa yantiqu anil hawaa nee na rasulullahi bu waxee bakkanam lu wax rek. ci man yàlla la bàyyi ko dëgg la jàpp leen lu mu indi rek jàpp leen lu mu ne loola loola la waaye lu mu ne wut loola teg leen fi suuf moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen den wax ni xayrukum man taxalama alqurana wa allamahu ki gën ci nit ñi ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale mu mel ni métier yi bari na lool bi nga jàngee ci école Cheikh Mamadou Mourtada ba noppi ba génn mënoon ngaa xool ba nit métier bu ëpp koom-koom jàngale ndax jàngale amutum njëlbeen ak mujj la am jàngale amutum njëlbeen ak mujj la am maanaam mbiram gaawut bari waa na ku jàng ba noppi ba yàgg mu mujj jàng maam ba ak daara ja dem defi la neen bari na lool yaakaar naa mbooleem bu kàllaf mu fi nekk te teew li may am na loo moom moom jàngale moom moom alxuraan moom lislaam moo jël am na toom teg ko daara teg waa daara muy natt bu ko suñu borom fi ki nekk ci leneen lu dul jàng ak jàngale nit mën naa ñëw ci dëkk di fa gan defalul dara waa dëkk ko amalu leen benn njariñ taxaw ci baas wax fa ñu jox ko junni yoo xam kenn du ñaar téeméer ya koy jox wala ñeenti téeméer ya da koy dàqante ak moom ah kay est ce que yéen a ngi may dégg est ce que yéen a ngi may dégg ma ni loolu nag nattum suñu borom la bu natt ci jàngale ñun ñi di jàngale xam nañ loolu nit dina ñëw rek

moo jël mbiram nëbb ay sekkareem ba noppi kattanal seytaane mu taaralal nit ñi ab safaan nga xam ni nit ñi ki nekk ci ci beneen jàng boo jëlee sa doom yóbbu ca daara ja muy jàng ki jël doom yóbbu ca ca école ba nit ñi def mel ni sax ki jàng école la ñuy gën a jox ci dañ koy fonk lool ki jàng école di ko solal yére yu set wicc ci ay taxawaay yu def yow mi nekk ci alxuraan di ko jàng nag mu mel ni sa àq dañ koy manqué loolu du kenn. fi mu doon asamaan ak suuf si mooy borom ci boppam moo fiiree mbiram ndax bam ne wala laaxeer bu xeetu làkk mi doon wulee fi ma aateka laahu daara aaxirata wala tan sa nasibaka min na ko ak mu wat ko mu xam solo moo tax mu xañ ko ku baax ak képp koo lu baax la itteel mu xañ leen mu mel ni kon mboolem nit ñi nga xam ne dañuy ay jullit waxuma tarixa de waxuma kër ci biiru tarixa waaye waxuma tarixa ñun jullit ñi laa wax war naa am taxawaay bu nu taxaw ci delluwaat ci suñu borom te xam ni kat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëg yowal xiyaamee suñu borom day wax jullit bi ni ko tari bi nga mokkaloon ci alquran mu tàmbali baxda a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin di yëkkati di yéeg arrahmaani rahim mu yéeg ay étage ci àjjana maliki yawmi diin ngay yéeg إياك نعبد ويك تأجنا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المخلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الصاد البروج ولم المعور وصاحب ومصحور يك ci escalier yi suñu borom bi la nga tari ngay tari bi yéeg ba fa nga yem nga sunu borom bi la da ngaa mën a dund ak ko ah, man de li ma bokkoon ci alxuraan fii leer yàlla la li nga weesu lépp yaa ko moom tëdd doo ko ñàkk daan jàng fii ci àdduna alxuraan day ñëw fekk leen ci pénc bi yowal xeer jàpp seen i loxo yóbbu leen àjjana waaw kon nag mbokk yi dafa mel ni da ngeen a woote woo gan ñi ba ñëw di wax ak yéen ngeen nekk ci fi ñu dajale nit ñi nit ñi loko wansitu lahandu rahamu li jotaay alquran la li jotaay bi yàlla li jotaay bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li jotaay tépp aji ci yonente bi kon déglu gi mooy tax kàddu gi mën a jàll nit ñi mën mu kon nun jullit ñi war nañoo góorgóorluwaat ci xam taxawaayu alxuraan mu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mos naa ànd ak saxaaba yi ñu dem xare ba ñu xaree ba jàpp lenn ci yëfër yi da leen wax ni leen seenum jox mooy ku jàngal fukki doomi jullit bañ fa indi nga ñu libéré la nga moom sa bakkan est ce que yéen a ngi may dégg te kooku xam nu ñu ko waroon a bu ñu buy xeex bi nga rey bi ñu bañ jàpp ko kooku rey rek mooy di àtte kon loolu day tegtale mangu jàngale alxuraan Serigne Touba mi nga xam ni moo liggéeyal rasulullahi fii ci réew mi liggéeyal ko ci réew mu ne liggéeyal ko ci bàkk bu ne liggéeyal ko ci dëkk bu ne dem fu ne dem ci géej gi dem ci jéeri ji dafa wax ni waxan suma yu bas sa sabiyu fii maktabin yaktubu wala xaliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naari fatax na saa boo jëlee sa doom yóbbu ca daara ja ñu jàngal ko baasin miim nee na yàlla jéggal sëriñ ba ko doon jàngal jéggal bàyyam ak yaayam kon gars yi alxuraan màgg ci baasin miim rek ah? ngay alxuraan màgg na de kon suñu daara yi nañ ko fonkaat fi mu nekkat kenn ku nekk ci noonu am na taxawaay lool ci gërëm am na taxawaay lool ci ay waaye ki nga xam ne dafa bàyyi gërëm bàyyi ay yitteem ne ci njaboot gi ne ci gone yi di xëy ci gone yi di ci gont ñun xamal ne yàlla bi kooku nun ay yitteem nun dañ cee war a taxaw kon nag kàddu gi ñuy waxee muy kàddu sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke mu Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam ni moo fi waroon a teew yëkkati kàddu yi xam le ni moom mii kat li ci moom waajur ma ko ci def sax Mamadou Mourtada ñoom ñoo ko waral seede ndax seen waajur nekkatu fi lu jël kàddu gi jox ñu ko mu ni am na loo ni sëriñ bi bëgg na ko ci daara ji bëgg ko it ci jabootu daara ji mooy lan mooy daara ji kat jëm kanam daara ji dafa war jëm kanam daara yi addiya alxuraan lay laaj ñu dajale ko jox ko ma leen toog mu def ko ci liggéeyu daara bi damaa bëgg nag ku yaakaar sëñ Tuubaa ku yaakaar sëñ Tuubaa yàlla wërsëgale fekk ma fi yëkkati ñaari ko addiya sëñ Tuubaa ñu dajale ko jox ko sëñ ma leen bàyyi fal téeméer ku yaakaar sëñ Tuubaa addiyee alxuraan lay laaj ji lañ ko war a defal bi jox na lu addiyee ñu indi ko waaye loolu doyut ñi fi nekk ñëpp kenn ku nga yéene defar daara ji kon addiyee alxuraan lay ñu def ko ci daara ji ku yaakaar sëriñ Tuubaa fekk ma fi jox ma ñaar téeméer jërëjëf jërëjëf mani képp koo xam ne bëgg nga boo duggee ci bàmmeel alxuraan nga taggu la ci biir bàmmeel wétti ni la ci biir bàmmeel fekk ma fi jox ma addiya alxuraan ma def ko ci alxuraan alxuraanul karim lay laaj addiya alxuraan lay laaj boo demee tey jii bala bëri ñuy fay ca Dakar xaw ma arena ba lañ koy wax kenn milliards yi ñu ko tabax ak na mel mais ne arena ba ca Dakar képp ku fa dem ba gis nañ ko tabaxee ak milliards yi ñu def kon daal yi dañ ko war a tabax daal yi dañ leen war a defar kuy jàng alxuraan jërëjëf Fall soxna Ndoye Fall maa ngi leen lay bàyyi càmm leen. suñu njaboot dafay jàng muy daara jullit ñëpp lu ci ab jullit dafi yàlla lay fay lu ci ab jullit daf ci alxuraan mu jëm ca daara ja yàlla lay fay de mbokk yi تقدموه لأنفسكم من خير تجدوه إن الله وخير الأسرار lu ngeen dawal ci lu baax nee na ci man yàlla nee na man yàlla dinaa leen ko téyeel dencal leen ko ba ngeen faatu ba ñëw seen i bàmmeel man leen mi ngi nii lii ngeen li nga nekk mu rees ak li nga def ci yoonu yàlla li nga li nga nekk mu rees ak li nga def ci yoonu yàlla kon mbokk yi ku yaakaar Serigne Touba fekk ma fi jox ma ñaari téeméer mu defal ko ci biir daara comme dañoo mën a am tontu si waawaay jàppale ko waaye bu ñu ñëw ñëw kese rek toog conférence bi neex na ñu dem mu jeex nañ jàppale gone yi ak daara ji ak sëriñ daara bi mooy liggéey bu mag bi lu fi nit mën a wax néew ko gën a faral. ndax kat bi daara ji tàmm léegi léegi kenn ku nekk la nga mën ngay def moo moo tax daara ji egsi fii loolu nag dañuy fex mu continuer rek. ci alquran mbokk yi ma na ñëpp teewlu sëñ ma dafa lu yàlla wax de waaw kay waay moom bëgg a leeral lu mu waxe ma sàmba nekk lu waxe ma demba waxe ki ni bind bind asamaan ak suuf lay bëgg junni la man de sëñ bi damaa sonal la lebal ma ñaari junni wóolu ko tax nga lebal ko yàlla nee na ku ma wóolu lebal ma ma ne ku wóolu yàlla la laax ñëwal jël saw ñàkk te mu dem ci daara ku wóolu yàlla yàlla wax de ay waxam laa neex rek ñu ngi ci teewlu maam ñëpp ceeb damaa judd fekk fi damay faatu faatu bàyyi sëñ Tuubaa nee na nga war a ci booy jàng waaye booy jàng ngir nangam 47000 ah kon dafa mel ni dañu wax ni 47000 moo fi daje léegi nag bëgg ciment jar ciment jar. waaw kon yaakaar naa faaw amaat. ñaata ñaari junni ak ñaata. Hmm? kon faaw amaat ñetti junni damay laajal nag fukki nit lay laaj yoo xam ni addi sëñ Moundoumbe lay laaj fukki nit. ñu yaakaar sëriñ Mountakha Mbacké nañ ma fekk fii kenn ku nekk jox ma téeméer ma defal ko ci liggéey bi addi sëriñ Mountakha Mbacké koo xam ne yaakaar ne bëgg bu ñu la jëlee ci bàmmeel sëriñ Mountakha Mbacké nangu na fekk ma fii jox ma téeméer bi ma dugal ma ko ci liggéey bi daara yi ku yaakaar sëriñ Mountakha Mbacké waaw ante bismillah waaw ñaar ñett yéen a ko moom bu ñu nit defit wutewul ak la nga jël dem jox ko sëñ Mountakha la ko ca jumaa ja boo duggee Touba ñu defal la ko ca université ba boo duggee a ba gis université mu wóor na la li mooy sa addiya nga joxoon ca université ba liggéey bii ñooy am rek loo ci joxee bu la liggéey boo ñëwee di nga gis di nga ko gis waaw wàññeel ma nga xam ñaata la ak ñaata ci des fukki nit laa soxla yu sëñ Mountakha fukki ñetti junni yi laa bëgg mu mat Thank you. mbokk mu baax mi dafa mel ni mottali ba yaakaar naa ni ah waaw waaye léegi nag lañ koy tëjee mooy addi maam Cheikh Ibrahima Fall lam Fall Babou Mourideen ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fall fekk ko fi jox ma téeméer ndóol ci biir liggéey bi tëjal ko ku yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall.

Thank you. 就让这完全口官方。ما ني عندي امام سخي الانفال بلا في عندي سخي عندي امام سخي الانفال انفال بلا المريدين ويا كان سخي الانفال لام فال بلا المريدين 아니야. liggéey bii ñuy liggéey ci daara ji dafa bokk ci liggéey sëñ Tuubaa yi nga xam ñu fi sëñ Muntaxaa ñëwoon moo ci njëkk a jëm loolu moo ci may sikki sax ma ni liggéey bi liggéeyu sëñ Tuubaa la ñu fi sëñ Muntaxaa ñëwoon moo fi njëkk a ñëw kon dañuy fexe nag ba lii ñu saxal ba at mu ne at mu ne ñu def ko sañ ba ci daanam kuma kuma ko dul masha Allah bu ko defee ñoom ñoom itam suñu asri bu ñu paree ñu tegal ñu shahadatan yi yu xuma xuma xuma xuma xuma xuma ànd ak yërmande yàlla subhanahu wa taala man day dama kontaanaat xam nga man Oustaz Ndiasse tuuti sëñ Xaadim daaneel ma ndax man li ñor waaw ndax sëñ Xaadim compulé la kàddu yi na lool lool waaye man gaaw jeex ndax gën ndax neex ci aaw yi da ko raxas te daa war a raxasu nag li kii na fay aaw yi daa war a raxasu lépp ñëw fii suñ xaadim yàlla nang fi yàgg nanga ko jëlaat de nanga ko jëlaat des na tuuti ba añee ba gaa yi génn na fay aaw yi laa bëgg maanaam nga raxasal ma yëpp ñu ñëw sotti ko fii su dugal ko ci daara ji waaw ni de aaw non ñaare yi ñu leen bàyyi ñu moom waaw aaw yi laa wax koy ñaare yi koy ñu moom bu ko kenn laa war fekkoon ngay sàmme nañu waa allo pengeer ñu ngi ñëw noonu ñu tàccu leen tàcc yi xuma xuma xuma xuma dalal leen ndeysaan ñoo nga xamante ni ñoo nekk noonu borom ndaagaay lu jekk yooyu di ñëw ndeysaan ñu tàccu leen tàcc yu ku ma ku ma ku ma ku ma ku ma ma ku ma ku ma bu rafet damay daal di continuer rek daal di woo élève bu ñuy wax Boubacar Diallo. macha allah déglu leen ci leen xale yi